bisimila Macky Sall tontu na Ousmane Sonko lii la yéenekaay yépp daanaka xëy yeggeenu Les Échos ne Macky kay tontu dafa écrasé Ousmane Sonko njiitu réew ma woon ne premier ministre li mu wax ci chiffre finance publique yi mu ne dañ ko falsifié dëgg Macky Sall ne réew mi ma fi bàyyi mooy réew moo xam ne indicateurs yëpp dañoo nekkoon au vert loola it la wax ci xët gu njëkku laas enquête tuddee loola contre attaque bu Macky sàll gannaaw tuuma yi Ousmane Sonko Macky mooma yéenekaay bi ne dàq na lépp lu Ousmane Sonko wax ne moom la ñu def ci koom-koomu réew mi enquête it ne nu Macky ma législative bu 17 novembre yi nga xam ne moom moo cay tedd liste takku wàllu Sénégal weddi it ba tëdd ca naaj ba mooy li Macky Sall def ci tribune jëm ci kàddu yëkkati woon tuumaal ko moom ak ñim ne ci bopp ma fi def man ak totalement faux Vox Populi ne loolaay tontu njiitu réew ma woon mi ñaawlu taxawaayu Ousmane Sonko ni muy doxale point actu ne moom kay Ousmane Sonko mooma Macky Sall da ko weddi weddi wu démb ni lépp lu mu ko waxal moom ak waa nguuram ci falsification chiffre finance publique dara amu ca kaddu la yu mu ne moom Macky Sall ma ngi koy naqarlu ca point actu Macky ne li te jaawale mooy lépp gannaaw ba mu weddee Ousmane Sonko wax na li ko tax a ñëw dëgg ci élection législative yi nee mooy ñëw yokk doole opposition bi fexe it ba majorité bu mën a yóbbu réew mi ci yoon wu bon fi am maanaam jox nguur gi doole joo xam ne dafay ëpp ba mujjee di xoqatal Ousmane Sonko tuumaaloon ca le bis bi le jour l'info réew mi quotidien ca l'informateur it Macky lam wax mooy si faux totalement faux tontoonoona premier ministre Ousmane Sonko waxit yéeneem ci élection législative yi ñu dëgmal yooyele élection sax le soleil ca xëy di ñu wax li tax candidat yi da ca daw noona sonn ca ñoom ñépp ñu bëgg a dem ca péncum ndawi réew ma yéene kaa bi ne ñenn ñi pouvoir a leen yëkkati waaye ñeneen ñi liggéeyal mooy tête de liste département bu Podor ci ne da cay daw jonjonteeg Abdoulaye Daouda Diallo ca Podor yéenekaay bi ne li leer daal mooy kiñ doon tuddee homme fort bu Podor moom mooy tula woote waxtu a Mate Codé Ndiaye kenn ci cadre yi bàyyi woon Khalifa Sall nekk tey njiitu parti Pacte ma ngay xamle ne valeur yu bari dañ koo bokk ak Pastef li waral ñu fekk si Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko fas yéene yéene leen a jàppale ci élection législative yi ñu dëgmal mat ko da njaay ne la gëm mooy taxawu taxawaayam tey warta doon nekk opposant ci nguurug Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko rawatina ak ànd ak Macky Sall lii tax ñu ne ñu won ko ginnaaw topp ñoom la gëm vision Sénégal 2050 gi président Bassirou Diomaye Faye gëm ne moo mën a génne Sénégal ci ndóol gi ne Eliman Habikan bu Lex Africa ma nga cay indi xalaatam ca boobaleb yéenekaay waxtu woowa tout ça pour ça journal booba dem ñun Bakel ne ñu njàqare gu rëy wa nekkee ndax ndox ma leen fekk yéene kaay ba ne inondation yooyu njeextal yi la nit ñi daw làqatu ji dëkk fa ndongo yee ne xajam na l'observateur ne Podor ak Saint-Louis jamono jooja barrage ba leen di menacé yéene kaay ba ne débordement fleuve bee waral lii plan d'alerte bi OMVS tëgg yéene kaay ba nga koy faram-fàcce xamal ñu ne luy tolloog téeméeri bërëb ràññee nañu leen am na itam ay zone de yoo xam mi ñu làq jant bi ngir mbëram gone yeenu ko jàppee woon ca kër yéen l'observateur ca moom la xëy nettali nu na muy dundee kaso ba ak misère ba ca ne yéene kaay bi ne dossier am nag tëj nañu ko fi mu ne mi ngi xaar procès fi booba journal bi ne changé nañu ko cellule waaye rajoom ba di Safir FM yéene kaay ba ne daa mujjee noppi premier ministre Ousmane Sonko moom woote na démb ndaje conseil interministériel jagleel ko JOJ 2026 yéene kaay ba ne ñeen fukki mesure jël nañu ko premier ministre yi journal ba ne engagé na président comité d'organisation bi di Njaaña Njaay yéene kaay bi ne na ni ñu ci àndeek ni ñu ci taxawee ca laasit moom Njaaña Njaay ma ngay dalal xeli ci JOJ yooyu ne nii mu gisee yëf yi doxe yaakaar na ne dana am ci anam gu mucc ay Sadio Mané muccalati na Sénégal lii la Les Échos wax ci xëtam gu njëkk nañu démb jongante baak Malawi burul woon Sadio làmbaay ñaaw ndax moo dugal benn but ba may Sénégal ndam may leen it ñoom gaynde ñu mën a qualifié ci Coupe d'Afrique des Nations dix na leadership am jëlit ay responsabilité Ndiaye moom jël na léengay ci Babacar Diagne mi jiite woon CNRA moom njiit lu bees nag ne bugguta doon gendarme de l'audiovisuel maanaam ñëw fii xoqatal nit ñi ci libération it moom Mamadou Omar Ndiaye gannaaw ba mu gërëmee président Bassirou Diomaye Faye ci pal gi xamle na ni mësu koo gis moom njiitu réew mi mësta it gis Ousmane Sonko danoo xëy rek tabb ko ñu des ca booba lépp journal bu ñuy xamal ne mbiram titre foncier 1451 R parquet financier ci marché financier bu UEMOA ne signature Sénégal ba tey ma nga crédibilité am Abbas Fall mi Adama Gaye laal crédibilité am ci tuuma yi mu ko tuumaal ci mbiram Azer bés bi la jour may ministre a Dièye la mu ko wax mooy Abbas yaa tey Babacar Mbaye Ngaraaf kàddu yooye nag la mu ca jàpp mooy Maimouna Dièye defiyewul kenn ku dul président de la République Bassirou Diomaye fay ñu taxaw foofa ñun ñaanal leen kenn dal jàmm ba ëllëg incha allah